nañu xam ni njariñ a ngi xéewal ñëw na liggéeyal sëriñ Touba egsi na ndax lu mel nii kat daa jafe waaye fii ko fi tàbbi di nga nawaat sëriñ Cheikh di nga ko bëggaat nii mu def kër Serigne Saliou bi ni ko ni ko defaraate nga xam ni kees gu ne def na fay bâtiment defaraat ko euh, mooy di gi jëkk a bëgg Serigne Saliou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 te moo ne nii képp ku bëgg a jariñu na nga ñëw. kuréel gi yaatu na ah waa Sénégal gépp daa ci woon lii moom. day day loo xam ni dañ ko da mën a su ko yéene rek ay ay kenn dama ko yéene senegal gépp képp ku àdduna sépp képp ku yëg.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 ku ku bu kenn jàpp ni sama jëmbi bopp ñee fi ne déedéet liggéeyub sëriñ Béthio la liggéeyub sëriñ bi la mooy dox ba tey waaw waaw. ndax daañu delloo xel kom wala ci yeneen daara yi. loolu nag man de dama ab taalu bi laa damay déglu ndigal rek man daal maa ngi ci maa ngi ci déglu. maa ngi ci sëriñ bi lu ma digal ca lay ne euh, fa ma jëm ak fa ma dul dem man xaw